saxaabatul kiraam sax bañ fiy nekk gën ñoo dégg diine sax ñu mel ni daana am loolu du problème euh, loolu taxul ñuy wax ñàkk jàmm ci réew waaye ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñëpp seen julli nangul ñëpp seen euh, mbuurum koor te nangul ñëpp seen koor nangul ñëpp seen laylatul xadar ak mboolem ñaan yeeg jéggulu yi ñu ci def yëpp suñu borom nangul ñu ko waaw wax imaam yi tamit bu ñu wootee ci jàmm loolu mooy actualité parce que réew mi boo gisee bu ñu demee ba euh, lu mel ne 4 avril lu mel ne tabaski ak korité ñu jox président pouvoir mu jéggal ay prisonniers yoo xamante ne yoon leen a àtte ba noppi loolu dafay wane ne feet gi du ci suñ yére yi rek la war a yem du ci li ñuy lekk la war a yem du ci li ñuy naan mais environnement bi sax dafa war a ànd ak feet loolu moo tax ñuy jox euh, président pouvoir ne ko su bisu tabaski bi ñëwee da ngay jéggale su ko defee ñi ci kaso yi sax noyyiwaat seen i mbokk noyyi environnement bi nekk environnement boobu day feet mais ku xool démb li am wakaam ak yoof ak lii xew ci réew mi ak euh, yii di guddi yii ñu jëm euh, képp kuy wax war ngaa wax ci jàmm loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, kuy wax war ngaa wax ci jàmm war ngaa wax ci luy luy luy boolewaat nit ñi surtout que ñuy politique parce que tension yi bari na prisonniers yi bari na xët-xët di bari na loolu nag maanaam kàddu imam ci tey daf cee bokk ndax li président di rëy rëy day ñëw taxaw ci ginnaaw imam lu opposant rëy rëy day ñëw taxaw ci ginnaaw imam tey kon imam yi tey ñoo amee pour euh, maanaam joxaat réew mi couleur bi mu soxla te yaakaar naa ne ñoom li leen ko alxuraan waxee rek lañ koy defee mooy ñu soññee ci jàmm waxaat président bi mu euh, xamaat boppam xamaat li mu yore xamaat ne peuple la ko seqal peuple bi tamit xamaat ne président bi kilifa la euh, yàlla jox na ko ay ay cër bu ko defee kenn ku nekk joyante waat sa bopp réew mi am jàmm euh, ñu doxal euh, te ñu àgg ci élection yi ak jàmm te jàll ko ci jàmm te ba déwén nag jàmm ñu ko waraat ci jàmm wari ci jàmm Sénégal sax ci jàmm. bu ñu dégloo njiitu fasiyé naa toog ak ñëpp ngir jàmm jooju am waaye nag fii Ziguinchor aussi maanaam fi nga xam di di le leader du Pastef Sonko yëkkati na fay kàddu la wax di ñaar koy mën a def kenn mënu koo def loolu est-ce que tey wanewul ne Sénégal bu ñu rek waxtaan mën nañ trouver maanaam solution waaw fas na maa toog ak ñëpp loolu bu ko président lu mu wax mais comportement bu muy am ci benn jamono moom tout le temps dafa war a mën a toog ak ñëpp parce que mooy président de la république tous les sénégalais te defe naa ne moom reconnaître na ne 58 pour cent moo ko fal pour cent nag bu la falee kon reste na 42 pour cent yoo xam ne d'accorduñ woon ci nga toog fi te ñooñu pourtant ku ci police jox ordre wala boo bindee décret day concerné 58 pour cent yi la fal mais day concerné tamit 42 pour cent yi nga xam ne faluñu la woon parce que noonu la république di doxee noonu di doxee nanguna ma tok ak ñep lolu mom lolu la war wax te lolu la wara mëss di wax te ma ngi koy ñaan mu dëkk ci diko wax parce que bu ko bu yaatalé yaatalee euh accorté ñiko ñiko ñiko fal am ñiko falul xamne bi décret di jóg mom buy bind décret du yek décret bi du yek ne amna 42 yu d'accord décret bi day mel ne que ne 100 sénégalais yi ñoko falon te pourtant amna ñu nga xamne démocratie mo leen mayon ñu bañ ko fal te biñu ñu xobi xob nañ ko ne ko 42 ci sénégalais yi faluñ la te lolu buy jël décision mom ñoña ñàkk gi ko ñàkkoon a fal kooku du feeñ ci décision Macky Sall kon dafa war a xam ne moom ñi opposé wu ak ñi opposé wu ñëpp mooy seen kilifa kon ñu ngi koy ñaan daal loolu na ci sax euh, jàmm jàmm nag ñaaru koy dox loolu moom Ousmane Sonko ko mujjee wax loolu mooy réalité jàmm parce que nit bu fekkente ne yàlla dafa dogal euh, juboowu leen tam ya te wóoluwu la mu yaakaar ne da nga koy rëbb kooku pour mu wóolu la ba ngeen toog di wax te it dialogue fi ma a am tamit dafa am fu mu jëm te président tamit day génn wax ne dafa bëgg a nit ñi bu subaa nga gis ay ministre wala ay ñu yor ci ñu bokk ci bureau exécutif euh, Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ci ci exécutif bi lañ bokk dañuy génn di wax ne ku mel ne Abdou Mbow gis naa ko mu ne opposants yi ay malfaiteurs lañ baat boobu nag mënu koo wax ba noppi wëlbatikuwaat di président nga nangu président di woo ay malfaiteurs di wax ak ñoom ak yeneen kàddu yoo xam ne da koy dégg ci ay ministres yi boppam yoo xam ne boo ko delloowaatee ak nawloo sax moo fa amul te itam Euh, gis nga dañuy geewal yi ñoy wax ne aw askan bo ca teralee kenn teral nga ñep mais japp naa ne tey ci euh, ci Sénégal secrétaire général parti politique waruñ ko mëna japp ci ay yenn yu ñak fayda quoi ku melni basirou Bassirou Diomaye Faye parce que japp naa ne ñii politique kenn gënu ko fee yaru kenn gënu ko cee responsable kenn gënu ko cee am xam-xam tay lolu yaakar naa ne ñi andul ak mom sax da ngay gis ku melni aissatou Aïssatou lu muy yeb Pastef dangay ngay dégg ma ne non Bassirou Diomaye Faye nag moom nangam bëri nañu nga xam ne tey comportement Bassirou Diomaye Faye moo leen moo leen bàyyi ci Pastef parce que dañoo xam ne kii nit ku nitu jàmm la soo amee lu mu wax loo xamante ne du waxu dara ak nu mu demee nii euh, yaakaar naa ne loolu tëjuñ ko moom tëjuñ ko mais ab Abdou mbaw lañ tëj euh, Baara Gaye lañ tëj Mame Mbaye Niang lañ tëj parce que parce que posture bi mu am ci politique war na waru ko woon a may waroon na ko mën a may maanaam ñu koy pardonné lu bëree baree bëri mais su fekkente ne tey da ngay nekk ab secrétaire généralu parti tëj la ak tëj benn benn benn benn benn benn buujumaan wala benn kolarsaar ñoo Il su boobaa yow yow tëjoo jomaay fay mais képp kuy politique ci réew mi nga jël tëj ko ci kaso. loolu yow foo taal jamono jii tàkk ne ñu gis ne démb kër Farba Ngom aussi ñu taal ko ndax mënuñoo wax ne ay du yem si boppi borom li tàmbali di xew si ñetti dëkku-dëkku yooyee. waaw loolu maa ngi ci mastawu bu baax di ko ñaanal yàlla. yàlla may ko xolu muñ parce que tamit xëy na digganteem ak président Macky Sall moo tax ku mere président Macky Sall rek da nga boo gisee ba wax dëgg yàlla da nga koy da nga ko koy ngay jàpp ne boo koy boo ko defee dara sa sa xol dina ci faju waaye moom jàpp naa ne coow la moom yaakaar naa ne lam ca mën bëriwut wala lam ca perspective bëriwut problème mu problème mu maire la ñu ngi leen di ñaan daal ñu delloo si waat seen xel te état bi tamit delloo si xelam